tey waxtaan wi li ko waraloon dañoo ñëwoon tey ci département Mbacké ginnaaw bi fi suñu candidat jaaree le président Amadou Ba ci meeting bu mag bi nga xamante nii def na ko ibbee campagne bi ci département Mbacké gis ngeen ne bërki démb jaar na fi commencer fi campagne am ci xalif général de des Mourides mun Mountakha Mbacké ñu koy ñaanal mu yàgg fi te wér ginnaaw bi loolu amee mu tànnaat njëkk a def ndax d'ailleurs sax sunu coalition benn meeting lañ amal. si campagne bépp te département Mbacké la doon amee muy meeting bi am bërki démb ñu siy wax rek foofu tuuti ndax loolu nag ak politique ñoo ànd ndax am na si njaboot yëpp kenn ku ne la la neex sa biir kër sax amoo ko d'ailleurs kon président Macky Sall c'est normal bu tànnee la président Amadou Ba dina am ñu nekk si ginnaaw loolu du leen neex il faut ñu nangu ko loolu moo am suñu coalition daawul mel nii daawul demee nii am na ñu nekk si biir coalition bi ay kilifa téye seen loxo jàppale wuñ candidat Amadou Ba ñoom am nañ raison mais li ñuy ñaawlu ñun en tant que jeune bokk ci coalition bi gis nañ yenn kilifa walla yenn ministre yu nekk ci gouvernement bi di poser ay act yoo xamante ni honoré wul coalition bi honoré wul la candidat Amadou Ba même honoré wul seen kilifa ndax en tant que nit bu fekkee da nga ànd ak nit man de sama kilifa lu mu wax damay gar sama bakkan pour loolu am lii ñu bëgg bu amee ñoom seen kilifa lañ weddi muy la le président Macky ndax seen. candidat amadu Ba joxul boppam coalition bi joxul boppam candidature bi président Macky Sall alal moo gën a rëy muy xaalis xaalisu réew mi dénk na ko président Amadou Ba ministre de finance trois ans mu def si lu am solo mu jëlee ko fa yóbbu ko affaire étrangère affaire étrangère mooy baatu Sénégal yow yaa ko yor si bitim réew muy politique affaire étrangère Amadou Ba yor ko mu génne ko indiwaat ko takkal ko capitaine bi def ko le ministre premier ministre chef gouvernement tànn jot ñun ñu jox ko mandat ne ko tànnal ñu mu tànnal ñu le président Amadou Ba ne moom mooy candidat Benno Bokk Yaakaar kon ñun ñi toog fii ñëpp ak coalition bi kenn amu ci responsabilité lu dul jàppale la candidat amadu Ba mënta ñàkk nag ay faucons yoo xamante ni lii yàgg na suñu parti ay nit ñoo xamante ni chaque jour dañoo mas di dox diggante président Macky Sall ak ay nitam ñoo ko tàggale woon ak Aline Badara Cissé ñoo ko tàggale woon ak Moustapha Cissé Lo ñoo ko tàggale woon ak Moustapha Diakhaté ñoo ko tàggale woon ak leader yi mu àndaloon ak ñëpp te ay gone la ñu nekk ci kanamu président Macky Sall man nañ see citer ñenn muy ay Mame Mbaye Niang et nga xam ne yàq rek lañ nekk ci réew mi Mame Mbaye bu nekkoon ci réew mu normal heure bi da ko waroon a fekk muy jaabante tirbinal maa ngi koy lancé appel dak bi nekk Kër Samba Kane Mame Mbaye na tax def conférence de presse expliqué lan moo ci xew ñun jeunesse Sénégal dañoo bëgg a xam lan moo xew ci dak euh, bi moom lañ ko joxoon moom moo ko doon piloté moom moo doon ministre de la yooyu la war a wax yooyu question mais waroo ñëw ñu ñëw ba toll fii ñu toll ñoom jaam ñi bëgg a def gor ñi ay jaam ñun duñ ko nangu de duñ accepter loolu ñoom jaam yi ñoo bëgg a def gor ñi ay jaam bëgg leen a weddiloo seen bopp noo non non non jamais loolu du am ñun Amadou Ba la ñuy àndal tey suñ amee tiset moom la ñuy àndal suñ amul tiset moom la ñuy àndal buñ amee xaalis moom la ñuy àndal buñ amul xaalis moom la ñuy àndal ndax nag président Macky sàll moo ñu ko joxante mooy suñu kilifa ñun topp ñu Thérèse Faye topp ñu Mame Mbaye Niang ñooñu kenn mënuñu see jox ndigal wala di ñu jox lu ñuy def wala lu ñu di def lii xew si suñu parti muy crise bii rombul ñaari bopp wala ñaari nopp Thérèse Faye ak Mame Mbaye Niang lu yàqu si APR ñoo ko yàq lu yàqu si parti bi ñoo ko yàq lu yàqal président Macky Sall ñoom la kon nag ñoom ñooy so soble bu bon bi si biir saako bi bëgg a yàq saako bi ñun duñ ko nangu am na jeunes yu taxaw face ak ñoom ñun li ñu bëgg mooy kàddu président Macky Sall comme génn na ba pare ne candidat Amadou mooy candidat am li mu am ñu fal Amadou Ba premier tour Mame Mbaye Niang a arrêté mi ngi woon nit ñi de gauche à droite naan Macky Sall moo ma def loo nangam moo ma wax loo nangam président ñu ngi lay lancé appel solennellement Mame Mbaye Niang mi ngi woo say responsable di leen menacé ne yow yaa ko yónni pour ñu bañ a battre campagne pour Amadou Ba loolu dafa war a leer teew yaa ñu joxañ Amadou Ba Mame Mbaye Niang mi ngi jox ay journaliste presse bi maa ngi wax seen mbokki presse bi séddale nañ leen un milliard cinq cent pour ñu reeteet Amadou Ba j'ai des preuves am na presse bu fi nekk di yàqal Amadou Ba dañ leen a séddale xaalis un milliard cinq cent pour ñu yàq candidature Amadou Ba ñenn si suñu waa parti ñoo ko def kon nag ñu ngi lancé appel solennellement le président Macky Sall mu siffler la récréation te woote waat militants yi ak responsables yi ñu dem jàppale le candidat Amadou Ba pour mu mën a jàll premier tour. ki nga xam ne moo jiite suñu coalition Benno Bokk Yaakaar Macky la tudd Sall la sant. moom Macky Sall moomu man militant wam bii moo ma jox ndigal nee na ma dama am candidat ma ne ko kan la mu ne ma Amadou Ba toppal ma ko loolu la ma sant waa léegi kon coow li est ce que jar na muy bari ki nga xam ne ñun ñëpp moom la ñuy déglu ki nga xam ne ñun ñëpp moom moo ñu jiite kooku moo tabbu Thérèse Faye Diouf kon ni nga ko waxee moo ko def mu doon ab ministre Mame Mbaye Niang bu tekkee dara ci réew mi Macky Sall moo ko ko def léegi Macky Sall mi la tabbu nga doon ministre tabbu ñenn ñu ñu doon ay directeur même Macky Sall boobu moo tànn Amadou Ba def ko muy euh, comment dire candidat wu coalition Benno Bokk Yaakaar léegi man kon lan moo war a tax li président Macky Sall bëgg ñoom waruñ ko ci mën a jàppale dama gëm ne képp koo xam ne da ngay contre le candidat amadu Ba c'est parce que da ngay contre le président Macky Sall parce que tey li gën a neex ci moom li ma gëm mooy ki koy wuutu ci réew mi jóge ci ak njabootam léegi ñoom bu fekkee ne ci démarche yi ñu nekk ci lañu ñu continuer est que loolu dina mën a nekk kon li may woo la jeunesse di ñi nga xam ne mooy coalition bi nañu rester derrière le président Macky Sall rester derrière le candidat Amadou baax moom mi nga xam ne moo ñu joxoñ wax ñu ne diw mooy seen candidat boobu ba tey déggaguñu benn kàddu bu wuute ak la mu ñu waxoon kon dama gëm ne bu ñu respecté le président ma Macky Sall lam ñu waxoon démb moom la ñu war a continuer di jàpp ba tey. ku ne gis na ne depuis bi campagne bi démarré ba léegi contexte électoral bi ñëpp gis nañ ko mais jàpp nañ ne fi mu gën a urée mooy suñu coalition Benno Bokk Yaakaar te li ñu ci gën a jaaxal mooy responsable APR yi nga xamante ne si ne ñu ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar parce que tey bu ñu nee problème Benno Bokk Yaakaar du ñu parti allié. mais ñiñ mën a cité ne problème bi nga xamante ni si ne moo indi problème bépp ci benn bokk yaakaar ay membre authentique lañ nekk ay membre fondateur benn bokk yaakaar APR ñu nag son excellence président Macky Sall ñoo ko tànnal suñu bopp ci dal ci yar ci compétence ci ay jéego yu mu liggéey ci parti démocratique Sénégal Ablaye Wade indi ko fii ci Serigne El Hadji Bara ne ko sant naa ko gërëm naa ko bi ma ko amee comme chef de gouvernement comme mboolem lu ma réalisé ci réew mi ba nit man koo teg bët ci moom laa ko amee ñuy topp loola ca moom gis yar gi ak dal gi ak fulla ji ak jom gi mu génn 2007 parti démocratique Sénégal Sénégal yëpp dem ànd ak moom jël réew mi teg ko ko jox ko avec 65 pour cent 2012 ñu di ko jàppale ba fii ñu toll tey président Macky Sall li mu def ci département de Mbacké def ko ci commune bu Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacké sunu jàmbaar ja moo ne woon ku ma defal lu ñëpp gis ma sant ko bañ di ko dégg 1988 dana woon ku may la saw carte Abdou war nga sëñ Touba ba mu koy wax ay réalisation moo taxoon ndax da boole wax li Abdou Diouf jëfal sëñ Touba ci dëkk bi boo boolee seen jëf ñoom ñett ñëpp lenn jëf président Macky Sall wat na ko Abdoulaye Wade liggéey na fi solo ñu di ko sant di ko gërëm mais boo avalé woon li mu fi liggéey lépp mu di 300 milliards ci commune bu Touba département de Mbacké bi mu ñëwee projet ko jox 416 milliards son frère léegi Pablo wax na ko daanaka lu teewul par bokkoon na ci liñ doon jooytu du hôpital ci wàllu santé ci Touba ñaari hôpital lañ ma sax muy Matlaboul Fawzayni Ndaamaatu ñoo ko liggéeyal suñu bopp président Macky bi ñëwee xam ne dëkk bi mi ngi yokk dafa dikk indil ñu hôpital niveau 4 45 milliards tudde ko Serigne Bamba bi mu ñëwee dafa fekk Touba am problème sécurité recensement ANSD bi bërki dem wane ne Touba mooy première ville xam ne dëkk bu toll nii waruñu ko bàyyi ko bàyyi moom benn poste tout le temps ñuy veillé di nekk ci biir dëkk bi renforcer sécurité bi indi ñu gendarmerie Ndindi indi ñu gendarmerie Belal ëllëg mu yam ci moo indil ñu police ku nekk gis na suñu frère Cobaan barki démb taxawaay bu am solo bi nga xam ne am na ci dëkk bi andil ñu police bu guy mbind assainissement Touba bor 8 milliards daf président Macky Sall fekk moom la parti démocratique Sénégal bàyyi àggale ko ku na ñaari état suñu doon mel tey wëral corniche bi la président Macky Sall di sol ci suuf dama ne na Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad suñu jàmbaar ja moo ne woon ku liggéeyal Serigne Touba Mouride la war a fay 1988 dana woon ku mooy la saw carte Abdou Diouf war nga Serigne Touba ba mu koy wax nag taxawaayam rek a taxoon taxawaay ba mu amoon nag ba taxoon suñu blaat waxoon loolu 1988 bu ko raw tey suñu frère suñu candidat président Macky Sall am na ko waaye nag mu tàddal ñu candidat bu am ak dal réew mi nag réew moo xam ne tey fi ñu toll sous région bi fépp ngi tàkk te ku ne xam na ne taal sous région bi bokk na ci pétrole bi ñu wax ak gaz bi tey ñu ne Sénégal gaz dafay feeñ ñu ne pétrole dafay am ñu war ko bi Amadou Ba di koo xam ne boo xoolee tey ci journal campagne amul benn candidat boo xamante ni si ne tey da nga ko dégg mu tudd Amadou Ba parce que amul lu xam-xam bi car macha ngi ci moom dal gi mi ngi ci moom relation extérieure bi mi ngi ci moom amul benn kër kilifa diine goo mën a dem ci Sénégal te Amadou Ba mënu fa dugal tànkam Amadou Ba jàmm réew mi nag fii ñu toll dañoo soxla ñoom tey candidat bu am ak dal ndax tey Sénégal li ñu soxla tey ak li nga xamante ni si ne am nañ ko tey ñu war ko exploité bu ñu sañoon ci ay loxo yu wér loxo yi am ak dal ci lay nekk du ma wax nag ba jeexal te ñëwuma ci suñu département bi ñu nekk ñi ngi sant bu baax mboolem responsable bu nekk ci département bi bu ñu limee ñëpp danañ juum waaye danañ ko jaarale ci kilifa gi nga xam ne moo ñu dajale fii di alaaji àll si la ba àll taxawaayam rafet na am na solo mag la moo xam ne léegi bi ma ñëwee laa ko wax sama frère Pablo ak Moustapha Messere na ba àll mooy nit koo xam ne doo mer soo dikkee sax naa la toogal xaar léegi lu ñëw ma jox la ko nga dem buñ ci amoon fukk yu mel na moom defe naa ne département bi dootuñu am benn jafe-jafe nañu boole suñu xol boole suñu force boole suñu lépp bokk ndey bokk bàyyi nañ osé mën a taxaw fu nekk ci département bi wax li son excellence président Macky Sall def ndax dafay def lu fi kenn deful mais nañu nag porté suñu choix son excellence président Macky Sall Sëñ Abdoulaye Mbacke suñu jàmbaar ja moo ne woon asgor soo koy wut mooy ki nga mën a méngale waxi tey ma jëfi ëllëgam président Macky Sall moo woo parti bi ñëpp déglu leen ak seen choix 72 heures mu tànnal ñu Amadou Ba ne critères yi ma gis ci moom ak dal gi jàpp naa ne Sénégal émergent ak continuité bi mu feram de moom la fi bàyyi maanaam Amadou Ba rek la ko yaakaare ci moom kooka mu ñu joxañoon tey rek ñu nay asgoor lañ duñu ko topp nag ba tey ji nag ñuy mën di dégg la ne ñi ngi sant ñëpp di gërëm